yàlla nattu na leen xëy na peut-être son sont de bonne foi waaye dañu jàpp ne ils doivent verser dans un équilibrisme pour seen réputation non non il faut être avec la vérité boo amee ñaari camp même bu dee benn camp bi sur mille actes wala sur mille questions moo am dëgg da nga jox dëgg parce que dëgg la mais doone ñii critiqué woon naa la léegi kon kii il faut que ma critiqué ko pour ñu ne man je suis indépendant pour ñu bañ ma ne man société civile nguur gi laa mun nañ ko xaw a interpréter ñàkk courage wala ñàkk conscience des véritables enjeux ak fan la réew war a jëm waaye ñi ma bëggoon ñi taxaw ci nag mooy acteurs yi affiché ne nag ñoom dañoo summeeku pour dugg ci langue gi langue opposition bi yërëm naa leen looy opposé wu nguuru Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo xam ne compétence ñoo ci raw jub ñoo ci raw rigueur ñoo ci raw man ñooñu moom yërëm naa ñu leen opposé woo dinañ ci taxaw ci ñoo xam ne nag il faut nag ñu taxaw ci ñoom parce que kenn du leen bàyyi parce que amuñu xelu ak xam-xamu manipuler sénégalais yi mais kenn du leen bàyyi ñuy xëy suba ak ngoon amee rajo yi télé yi ak les canaux communication te li ñuy wax dara du ci dëgg ñu taxaw ci Bougane Gueye Dany xam naa di ngeen ne jarul tontu mais dañ koy tontu. parce que dafa am solo parce que yàlla moo wax walaw laa naa sa ba'dahum bi ma lahuddimat sawaami' bu taxul woon ñi jub pour incarner la bien niñ leen di jañee pour ñu jàkkaarlook ñu jub pour incarner le mal kon adduna bi yàqu na kon màbbal nañ sax man yàlla samay symbole synagogue yeeg église yeeg jàkka yi kon il faut mu am ñu taxaw tontu leen dañu koy laaj moom ex richesse bi mu amoon parce qu'il n'est plus riche et jàpp na ne richesse mooy seul mbir bu mu war a targué woo man entrepreneur la man am naa xaalis ñii mënuñu am xaalis ay jiitu ay juuti man nañ fan la ko jëlee te c'est c'était une richesse rapide bu gaaw boo xam ne fat-fat mu am xaalis fortune boo xam ne elle est injustifiée et dina am lu ciy feeñ ci fan yu ñëw c'est extrêmement important parce que am na loo xam ne dafa yomb ci réew mi waaye chaque jour mu ne moom entrepreneur la def na ay preuve am tijji na entreprise kon ay fonctionnaire kenn du leen dénk réew loolu réew ku ko dégg xam ne kii amul xel ñaata réew nañ dénk ay homme d'affaires ñu yàq ko ñaata réew nañ dénk ay fonctionnaire ñu defar ko lu laa travailleur la woon boo xam ne syndicaliste la tabaxul réewam Lula da Silva ca Brésil am na réew yoo xam ne fal nañ fa ay homme d'affaires yu mag comme États-Unis benn mandat lañ am ñi ñuy sanctionné leen après beneen mandat la ñuy xaaraat mun nañ ko bañ am comme mun nañ ko am est-ce que dañu bind ne yow boo mënee yor boutique boutique bi développé rek yow dañ laa war a dénk réew waaye moom sax mënut a yor boutique ndax entreprise yi mu yor fu mu mujj kay ana jooni jooni déggati ngeen ko kon boo naan entrepreneur laa dañ ma dañ maa war a jox réew yow li say entreprise doo ko yoree say entreprise naka nga ko yoree ban modèle économique nga def est-ce que emploi yi préserver nga leen est-ce que say groupe de presse ña fa nekkoon ay icône ñu ngi fay continuer di des ba nit ñi di fa bëgg ñëw mu nekk une entreprise attractive wala ñit ñi lañuy daw nan nga gouverner sa entreprise ndax ku mënta yar kërum liggéeyu 3000 personnes yàpp sénégalais yi mooy taxaw nga ne da ngay bëgg a diriger 18 millions de sénégalais c'est pas possible waaye chaque jour mu attaqué président Bassirou Diomaye fay ak premier ministre Ousmane Sonko ñu lay xamal ne ñi ngay attaqué du ñu sa morom nawloo la. duñu la mës tontu ñu la JPS xamal ni ñu ngi lay xamal ni lii caractériser acteur politique mooy nga am poids politique yow mënoo yàpp Pastef te ñemewoo yàpp Pastef Pastef 2014 nañ ko créé mu participer ci cinq élections en mille 2017 trois ans après la création de Pastef Pastef dugg assemblée nationale présidentielle 2019 Pastef am 15 pour cent am 687 000 voix jël troisième présidentielle élection locale janvier 2022 Pastef fal ay dizaines de maires législative bu juillet 2022 Pastef fal 24 ba 25 députés xawoon na imposer cohabitation assemblée nationale mars 2024 Pastef am 54 pour cent dès le premier tour et ses alliés lii mooy bilan wu Pastef en dix ans yow sa bilan en deux mille dix huit bañ ko créé ba léegi ci weer yi dañ ko créé woon six ans parce que yow bi ñu lay créé sa mouvement boobu Pastef benn élection rek la bokkoon boo bokkul kon élection yi ma wax ni yëpp da cee bokk muy ñeenti élection local deux mille vingt deux damay wax sénégalais yi kii wax muy Bougane Gueye Dany lan na ko sénégalais yi nattal ci local deux mille vingt deux ndax ñun département de Dakar nañuy defee politique commune yi fi gën a représentatif yi fi gën a représentative Mermoz Sacré-Cœur bokku ci commune bu am solo la ñu ngi fàttali ne commune u Mermoz Sacré-Cœur ci élection yi ñu jógee nombre d' inscrits yi c' était vingt quatre mille deux cent soixante et un inscrits Bougane Gueye Dany nekk candidat à côté de neuf autres candidats pour conquérir suffrage u waa Mermoz Sacré-Cœur vingt quatre mille deux cent soixante et un personnes ñoo inscrire pour voter foofu ba ñu tamee ci vote yi onze mille cinq cent soixante cinq waaye ñi nga xam ne ñooy nombre de suffrages valablement exprimés onze mille six cent soixante dix huit la ci li wax xam nga ñaata ñaata voix la Bougane am six cent soixante quinze voix boo jëlee six cent soixante quinze voix sur onze mille six cent soixante dix huit vois xam nga ñaata la pourcentage zéro virgule cinq pour cent lii la la sénégalais yi nattal sénégalais yi teg nañ la sa place waa Mermoz Sacré-Cœur teg nañ la sa place te muy commune bu ndaw ci biir dakaar munoo ko gañee zéro virgule cinq pour cent nga am sur les neuf candidats yow sixième nga jël bennoo ñoo la raw. Yewwi ñoo la ñoo la raw parti socialiste amoon nañu liste ñoo la raw gox yu bees ñoo la raw waaye am nañ ñu ñuy wax alliance des valeurs éthiques et citoyennes ñooñu sax ñoo la raw avec nga jël sixième kooku moo taxaw tey di di tëkku le président de la république Bassirou Diomaye fay am naa Diomaye moom malheureusement du du nelaw lu bëri mais bu doon nelaw moom xam naa day biddanti parce que loolu mënu ko teree nelaw mais bi ñu jógee ci local yooyu même local yooyu nga ne candidat nga ville de Dakar mënoo sax defar liste ñu teg ci juróomi weer kaay ñu dem législative juillet 2022 munoo am parrainage mënoo am parrainage ay coalition yu mel ni bunt bi ma leen di saluer passage am nañ parrainage yow mënoo am parrainage législative 2022 amoo parrainage ñu jëm deux mille vingt 2024 munoo am parrainage waaye yéen kii ban poids politique la am lu dul yor benn groupe de presse am bu xëyee suba ba ngoon ñu koy xalamal muy wax di fëgg dënn te fu jongante ñëwee bu demee bu dee parrainage la du am mais alhamdulilah ren amul parrainage léegi nañu dem ba xool ba xam est-ce que dina mën a jàllee plus fort reste bu dee tête de liste la bu dee am na am na fit sax mu ñëw département Dakar mu ñëw xëccoo liste départementale bu Dakar pour nekk tête de liste ci liste boo xam ne da ciy bokk Bougane Gueye Dany les sénégalais t'ont remis à ta place depuis 2018 yaa ngi activé wu ci champ politique bi élection lay tax nga participer sénégalais yi sax dañ la présélectionné wul pour nga nekk candidat yi nga xam ne amul présélection soo demee sa yow li ñu lay natt yow personnellement mooy yow sa poids au Sénégal 675 voix la am te man leer na ma ne wàññeeku na loolu mooy sa poids politique il est temps qu'on respecte suba ba ngoon. stratégie bi mu jël mooy am na ñu ko xelal ndeysaan am Sénégal ko jëriñ ñoo xam ne dañ lay induire en erreur ne la Ousmane Sonko li mu am li ko may yëpp mooy ni mu doon attaqué Macky Sall dafa am courage kon yow il faut nga attaqué Macky Sall di dóor Sonko ci bu baax parce que loolu mooy tax sénégalais yi déglu la waaye ñu fàttali ko nag ne da ngaa amnésique rek deux Pastef 2014 ba mille 2021 xam nga la moo ko caractérisé opposition argumentée et documentée. lépp ci xam-xam nañ ko doon teg mooy parti bi ëpp cadre Sénégal ba ñuy réformer code minier bu 2016 Pastef dañ cee bokk indi seen xam-xam président Pastef nekkul fi di coo rek dafa bind livre pétrole et gaz au Sénégal chronique cent cinquante 256 page man livre boobu laa njëkk a lire moo ma ba man ma dem def master en droit des énergies et des mines parti boobu noonu. ñooñu noonu lañu opposé woo ba dem ba Macky Sall dem ba mer parce que mënu leen topp moom ak régime am si débat wu idée yàgg na leen woo ci débat ci plateau ndax ku jàkkaarloog ma plateau mu effacé ñu fekk na ko si terrain wu song ko ci ay mërs ak jug pour éliminer ko comme un adversaire politique jaar par la justice loolu moo tax Pastef jug nag taxaw woote résistance kon résistance su Pastef ak résistance su Ousmane Sonko du résistance su Bougane Gueye Dany il faut mu leer résistance yi du benn ci contexte waaye résistance yi du benn ci façon def sa point de presse di nga ma rey mbaa ma rey la non Ousmane Sonko ba muy taxaw naan di nga ma rey mbaa ma rey la dafa woote Kër masaan ñoom jëy pro génn ay milliers de sénégalais fekk si ko te joxuñ kenn cent franc yow wooteel suba théâtre national dañuy Sorano ñu xool ñaata ñoo lay fekk si wooteel suba foyer bu Grand Yoff ñu xool ñaata nit ñoo lay fekk si. kon résistance su président Ousmane Sonko bokkul ak résistance su Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko n'est pas et ne sera jamais ton alter ego il faut loolu leer pour ku ne xam kan mooy sa moroom di wax nag ne am na ci loo xam ne jàpp na ne stratégie la parce que wax ji bu bëri bi yëpp ak virulence bi yëpp parce que am na lu mu jàpp ne moom lañ koy reprocher sur des faits mu ne kaay leen ngeen tëj ma ci wax pour ma victimiser wu Bougane Gueye Dany man maa lay laaj lan nga wax ba bañ ku la tëj ci jëf lan nga jëf ba bañ ku la tëj ci wax bëgg ku la tëj ci wax lan nga def sur des faits yu ñu lay reprocher ba bëgg ku la tëjee wax mais bu ñu la waree tëjee jëf jëf nañ lay tëjee kenn du la tëjee wax man maa la wax loolu c'est extrêmement important li may wax moom xam na ko kon nag yamal sa place nga liggéey ba mën a am parrainage entreprise yi nga yor wala alal bi nga amoon ndeysaan parce que buy wax da ngeen di sentir ne enn lay waxee moo tax psychanalyste yi dañu war a xool nit ki est-ce que feebarul parce que day day souffrir d'une maladie grave te maladie bi lan la mooy maladie wu ak jalousie mooy mais Bassirou Diomaye Faye gis nga ni mu doon waxee démb parce que non ce jeune là maa maa ko maa ko magee ñetti at usmaan Sonko ñoo bokk génération pour pourquoi ñi sénégalais yi topp leen xër ci ñoom bëgg leen fonk leen ñu crédible fu ñu dem ñu tijji leen man mënuma am loolu te man man jàpp naa ne am naa alal loolu Sénégal doo ko fi mës a amee parce que crédible ci bëtu sénégalais yi te sénégalais yi xam nañ lu tax crédible xam nañ la moo tax nga dem bay mer bay saaga parce que lu tax sénégalais yi nanguwuñ la wóolu ndax musuñ jàpp ne opposant nga loolu ñun ñun mënuñ ci dara kon nag fi ñuy daanalee ci chapitre Bougane parce que benn chapitre la woon bu ñu war a clôturer pour jàll ci leneen mooy Bougane Gueye Dany yamal sa place boo génnee suba huit huit heures quinze ñu def point de presse ñun JPS tontu la man maa la wax loolu et on te dira ñi nga bëgg jàkkaarlook jàkkaarloog ñooñu duñ mus a nekk sa alter ego et na nga xam ni li la war mooy yor say entreprise ci façon bu sell ba sénégalais yi wóoru say entreprise waaye nag li la war mooy nga liggéey ba mën a am parrainage bis boo amee parrainage après sénégalais yi dinañu la mën a bàyyi xel nga war a am voix au chapitre parce que nag démocratie c'est la loi de la majorité yow mënoo jàll parrainage nga bëgg am voix au chapitre mais même dans les sociétés africaines traditionnelles balaa ngay mën a wax nga mën a am xam-xam mais nit koo xam ne buy wax dafa doyadi doyadi doyadi il est d'une vacuité intellectuelle extraordinaire il est nul il faut le dire du xeebeel mais waa jii dafa cuune ndax mënu la aligner benn idée boo xam ne ça tient ci kanamu benn esprit mais bopp bi moo rangé wul ngeen baal ma ci wax ci non c'est ça parce que bopp bi moo rangé wul mun ta wax ñaari ñaari ñaari argument yu dëgër munoo def calcul sax bu jaar yoon un plus xamoo ne égal deux après nga bëgg a taxaw nga ne yow yaay jàmmarloog régime bii nga xam ne booy énarque taxaw yi non man yërëm naa la kon nag yamal sa place li ma gën a yéem nag ci li mu wax démb mooy quand il dit que Macky Sall moo ñu moom laa mere parce que moo ñu jàllax booy yi nga xam ne munuñu kon moom ñun ñun Macky Sall moo ñu fal parce que ñun Macky Sall ñaar lañ mun terewee falu wala bi ci jiitu mooy Macky Sall xeexoon ak ñun ba duñ bokk ci élection yi loolu la jéemoon mais mujj ko am parce que xañ na ko président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay nekk candidat kon dafa bëgg ne Macky Sall dafa waroon def tout ba ñun duñ nekk candidat par une élimination judiciaire ou politique kii est-ce que démocrate la wala Macky Sall kon jour élection yi dafa waroon def tout pour ñun bu ñu gañee mooy lan dëpp le suffrage populaire parce que ñaar yi moo fi am Macky Sall bu ñu mënul tere nekk candidat ñu dem élection Macky Sall mënul tere ba 54 pour cent yi am parce que moom moo taxawoon ne 54 pour cent yi ci la bokk kon ça veut dire pour cent yi il l'a mu taxawaat ne Macky Sall moo tax ba ñu ñu falu kon Macky Sall moo ko mere te mu taxaw naan ay nitam ñoo ñu votel ci ay localité xanaa moom day mere ay nitam après nga taxawaat nga ne Macky Sall nga mere mel ni Macky Sall mënoon nañu teree falu kon yow day wane yow esprit bi nga am ci démocratie mooy nit ku yor pouvoir dafa war a xañ ku ko neex du falu parce que kii incompétent la musumaa gis ku cuunewee nii musumaa gis une telle inculture démocratique et politique kooku taxul ba kenn dellu ginnaaw kooku président Ousmane Sonko président de la République Bassirou Diomaye Diakhar fay duñu ko tontu ndax taluñu ko ils sont des enjeux stratégiques yoo xamante ne franchement ñun ñi sax waruñu ko woon tal waaye am loo xam ne du ñu ko bàyyi parce que il y va de notre responsabilité parce qu'on nous a responsabilisés à la tête du mouvement des jeunes patriotes et nous devons faire face aux de la République mais ñun ñi sax nawloo wuñ ko kon bu dee wóolu na boppam tuuti man de Pastef maa fa gën a néew xam-xam maa fa gën a nekk xale maa ngi koy invité à un débat public su bëggee demee ñu dem ci émission wu teleem yooyu ak journaliste yooyu maa mu on fait un public kon ñooñu duñu ay opposant yu sérieux yoo xam ne mun nañu teree yegg fu ñu bëgg a jëm ci opposant yooyu da ngay gis ñoo xam ni aussi ndeysaan ay jeunes yoo xam ne ñun xawoon nañ leen naw bi ñuy génn ndax su le plan médiatique am nañu benn rhétorique comme par exemple Pape Djibril Fall